sallam yonent bi nag boppam dafa rëyoon kawaram dafa saqoon sallallahu alayhi wa sallam ay bëtam dañoo rey ay yéenam dañoo saq ay xefam dañoo auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niass sans dimension l'homme qui a su maître l'islam avant tout il est le cheikh qui a suivi les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a fait de charme Tidiane Chérif son Il n'a jamais cessé de glorifier Dieu. C'est pourquoi nous ne s'enlacerons jamais de dire Alhamdulillah, Dieu par Bayes. By the Resurrect, by the someone in no one, by the beginning and the end, by the Alpha and the Omega, by our best friend. مولانا Shah al-Islam El-Haji Ibrahim Munyas ta'ala est ici. Oui, il est là. Bail is you and me. Bail est le tout dans toutes choses. Bail est celui qui nous montre l'amour. is the king of all kings. Bail is forever forgiving. Bail a yon begun. Bail tu es la lumière. Yag nañu dégg gis Mais c'est à qu'on sache ce que signifie réellement gis-gis yàgg dég dég dég dégg waaye yow bayna na si yaa tax ñuy dég si bir dégg Docteur Kholi, ken du yow bay. le sauveur des âmes le sauveur des cœurs sombres le sauveur des cerveaux déboussolés le sauveur des corps pétrifiés Baay Ñas radiyallahu ta'ala you are our heart our life our soul and our body. Your Bainus radiallahu ta'ala thanks to you, Bainus radiallahu ta'ala you're not thinking that we should not. ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci bis bii nga xamante ni yaa ngi si juddu yow Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass mi nga xam ne yaay suñu lépp lépp lu ñu am yow la tey yow Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass kon di wax bon mawlud à tout le monde alhamdulilah jërëjëfee Baye Niass alhamdulilah jërëjëfee Baye Niass alhamdulilah jërëjëfee Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass. loolu yàlla. safara ba lu dul yàlla noonu la naka Ibrahima waa fay noonu àdduma bi ilaa rabbil alamin dolli leen nag xam yàlla xam yàlla moo gën gis yàlla gis yàllaa gën a tebbe waaye xam yàlla gën loolu moo tax maj soo ci dëggoom bu jëkk fa muy waxee na gis na yàlla dana dem ba xam yàlla nag bu demee ba xam yàlla booba la gën a sooye maqaama